baabu qadaa'il xaajati lii mooy buntu faj aajo faj aajo mooy dem wanag dem ci wanaw rek kuy dem wanag sopp nañu bu àgg suuf ndegam mën naa àgg suuf tey tey aw làmmiñam bañ a wax benn benn baat lu may nag lu mënta ñàkk nit ki bu séenee gone wala gumba muy bëgg a daanu ci am pax wala sawara wala mu séen alal ju bëgg lakk moom na wax waaye bu dul loolu bu xasee tollu ci di faj soxla ci wanag bu mu wax genn kàddu sopp na itam mu toog ndegam bërëb ba dafa laab te nooy nga xam ne des na àgg suuf kon sopp nañ mu àgg suuf su bërëb ba nooyee ba noppi nag am sobe boole ca ni ki foofu day fu ñuy yeew ay fas wala ay baxla wala ay mbaam nga xam ne yooyu seenum saw sobe la foofa bu fa bëggee dem wanag faw day taxaw rek waaye du sañ a àgg suuf su mënee moytu sax béréb mel noonu seeti beneen moo gën waaye nag su mënta ñàkk kon day taxaw te bañ a àgg suuf ndax dañuy bañ bu àggee suuf sobe sam fekk foofa taq ko kon ni ñenn ñi defee ne taxaw di saw noonu la diisee diisewul noona dañoo sopp rek àgg ko suuf su mënee àgg suuf waaye bu dee béréb bu boole nooy ba noppi foofa def sobe nga xam ne bu àggee suuf rek sobe su fi nekk mën na koo taq kon àgg ko suuf day araam day war mu taxaw ne nga mënta seeti feneen bu mënee seeti feneen nag moo gën dafa am béréb yoo xam ne sooy dem wanag na nga leen moytu boo ko fa defee bokk na ca ker goo xam ne nit ñi dañ koy aajowoo ñëw di fa toog ker gu mel noonu danga fa moytoo def sobe ak sof lu ngelaw li dem wanag sof lu ngelaw li xam ne ngelaw li mën naa wëlbati tuur ndox ma mu dellu ci moom taqal ko na moytu daal soflu ngelaw li ak pax moo xam ne gësu ko lépp pax moo xam ne du ma ko gasal boppam rek na ko moytu ndax mën naa am su dee tuur ndox rek ndox ma àgg ca biir pax ma fekk dara nekkoon ca loola mën naa am bu dee lu mel ne jaan mbaa jiit mbaa tàmbalee génn su ko séenee daal di koy ragal mën naa am mu daal di jóg bu dee jóg nag te fekk na tuutoon sobis daal di taq ci yéreem taq ci yaramam bu dee pax moo xam ne moo ko gas na dara nekk ci waaye pax moo xam ne gasu ko daal na koy moytu béréb bu dëgër këñ ba noppi def sobe moom na koy moytu bu dee nag béréb bu dëgër boo xam ne su àggee suuf na tuur ndox may sotti ko du am doole ba di ko tiis kon mën na àgg suuf waaye bu fekkee ne itam béréb ba laab na waaye dafa dëgër nga xam ne bu àggee suuf itam tuur ndox mi génn ci moom da koy tiis na moytu rek kon béréb bu dëgër boobu aw yoon woo xam ne nit ña dañ cay aw ak rootukaay boo xam nit ña dafay roote si yooyu yëpp dafa moytoo dem wanag ndax yooyu ku ko fa def ku dikk rek daal lay móolu daal lay rëbbu su fekkee ne ca àll ba lay demee wanag bi ci kër gi dañuy xool bu fekkee digganteem ak xibla dara doxu fa muy ab digg bu def ndànd fay fay rek na moytoo jublu xibla na moytoo wan xibla gannaaw na jublu feneen bu dee ci àll ba nag waaye am na lu ko suturaal lu dox digganteem ak xibla ndax kon sañ naa jublu xibla mbaa wan ko gannaaw wala mënu ko dañ caa woote am na ñu ne ak siib la am na ñu ne déedéet ak araamal la waaye daal dégg nañ ci ne moom bu dee ca àll ba muy dem wanag tamuy rek digg bu yaatu dara waru ko du saña jublu xibla mooy fi nga xam ne bu dee julli fa la jëm du saña jëm foofa du ko saña wan gannaaw na jublu feneen bu dee ci kër nag moom maye nañ muy joteeg ka muy seel ba noppi jublu xibla wala mu wan xibla gannaaw maye nañ ba tey muy dem wanag moo xam wanawu ndaw la moo xam wanawu mag la ndegam ci kër gi la rek mën naa jublu xibla mën na ko wan gannaaw teewul nag sopp nañ booy defar wanag nga fexe ba na nga koy defare ku toog du jublu xibla du ko wan gannaaw day jëm feneen ba tey nag joteeg ka muy séyal noonu ci ab digg bu dara warut foofu ci àll ba rek ba tey araam na mu di ko def jublu xibla wala mu koy wan gannaaw na jublu feneen su fekkee am na nag lu dox digganteem ak xibla nag ñu wóote ca ndax sañ naa joteeg soxnaam maanaam ka muy seen jublu xibla mbaa wan ko gannaaw ndax loola dox digganteem ak xibla wala sañu ko foofu am na wuute ñu sib ko ñu araamal ko dugg ci béréb boo xam ne dañ fay dem wanag na nga moytoo yóbbaale dara loo xam ne dafa am turu yàlla rawante na alxuraan boo nekkee ci biir itam na nga moytoo tudd yàlla ci saw làmmiñ rawante na jàng alxuraan mbaa di ko bind ndax bind gi mook jàng gi ñooyemoo lépp lu mu yor rek te mu am turu yàlla mbaa alxuraan na ko bàyyi ci bitti nee nañu nag su fekkee ne da ko dugal ci poosam rek mbaa mu def ko ci porte-monnaie ba nga xam ne feeñatul rek mën na koo duggaale wanag wante na nag mu ragal ne su ko bàyyee ci bitti ñu fab ko wala mu naaw réer kon jàppal ne la amee mbind ma nee nañ bu ko xasee def ci biir poosam rek dal nay baax ndax poos bi dal na ko suturaal séeroon nag gàllaaj buñ bind alxuraan mbaa tur yàlla mbaa dara itam bu ko xasee ëw ba mu dëgër rek dafa feeñatu ca rek moom mën na koy duggaale wa nag saa yu nekk dara nekku ca nee nañu nag appareil yi nga xam ne moo xew fii mu nekk ñu di ci bind alquran di ko ci xool ak di ko déglu mbaa leneen sax lu bokk ci xeeti mbind yi ci des moom bu fekkee ne ubbiwoo ko ba muy feeñ rek mën nga koo dugalaale ci wanag nee nañu nag bu ñu sañoon sa appareil doo ci def daray alquran mbaa lu mel ne xasiday sëriñ bi mbaa weneen turu yàlla ndax dañuy ragal ngay dugg ci wanag fàtte koo fay ba nga demee ba ci biir rek mu daal di jekki-jekki ubbiku tàmbalee wax day nee nañu su fekkee mën ngaa bëgg ci doo ko fàtte bala ngaa dugg ci wanag rek fay ko kon sañ ngaa def ci appareil bi loo ci bëgg def ci xeet yu mel noonu waaye daa mel ni daal moytu ko bañ ko cee def moo gën a wóor ndax fàtte dafa yomb doomi aadama bu dee ci àll ba lay demee wanag taamu nañu mu sori bëti nit ñi ak noppi nit ñi ñu taamu itam mu wut lum làqoo mel ne garab wala lu ko nuru nga xam ne kenn du seen jëmmam nga sax sàng gi awraam moom ba kenn du ko seen saa yu nekk dañ ko koy digal waaye nag ndegam ci àll ba la nga xam ne mën naa taamu dañoo bëgg mu taamu béréb bu suturlu bu làqu boo xam ne kenn du seen jëmmam kenn du dégg ci moom dara it nga xam ne lay génn ci moom bu amee kàddu it kenn du ko dégg bu dee ci kër gi nag moom fa wana wa nekk rek lay mën a dem bokk na ci li ñu sopp bala ngaa dugg ca wana wa fa nga xam ne fa ngay deme woon ak daal lañ bëgg a wax bala nga faa dugg nga jàng ñaan góob nga xam ne ñëw na ci addis allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'isi suñu borom yàlla nag ma musal ci saytaane yu góor yi ak saytaane yu jigéen yi am na ñuy tàmbalee bismillahi door cee teg allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'is su noppee ba génn ba ci bitti nag mu daal di wax ne ghufranaka alhamdulillahi alladhi adhaba anni al-adha wa afani yàlla jéggal ma man day sant naa la lool yow mi nga xam ne yaa ma dindil sobe si jàmmal ma ñaan gi ñu waxoon ne bala ngaa dugg nga koy wax la ne bu fekkee ne foofa defaruñu ko ngir dem wa nag ni ki yow rek nga dox ba ci àll ba yàgg nga jàdd rek bëgg a dem wa nag kon moom boo demee ba taxaw fa nga bëgg a demee wa nag waaye dara génn gut ba tey mën ngaa jàng ñaan gi bu dara xasee tàmbalee génn nag moom doo mën a waxati ñaan gi bu doon nag béréb ba dañ koo waajal bëgg kuy dem wanag mën faa dem doonte sax kenn demagu fa du tee rek boo xasee dugg ci biir moom ñaan nga nga daan wax bala ngaa dugg danga koy bàyyi bañ koo wax ndax béréb booba dañ koo waajal ngir dem wanag kon nag ñu tàmbali faa dem wala yow yaa fa njëkk a dem ñoo ci yemoo boo xasee dugg ca biir rek bu waxati ñaan nga nga naan wax booy bëgg a dugg ci wanag dañoo bëgg bala nga àgg suuf nga xool ba xam am na looy ragal lu mat a moytum déet bala nga àgg suuf waaye nag boo xasee àgg suuf ba dara tàmbalee génn moom tàmmuñu ngay xool ba xam na nga gis dara am déet ndax dañuy ragal boo xoolee gis dara ragal ko daldi tiit jóg sobe ci tàmbali woon ak génn daal lay taq na nga nemmi ko fa ngay bëgg a demi wanag xool ba gisoo dara looy ragal door a àgg suuf su fekkee xas nga àgg suuf nag bu dara tàmbalee génn moom tul di nemmi ko li la wër ndax mën naa am nga nemmi ko rek gis loo ragal dal tàmbalee jóg sa bés yi sotti ko ci sa kaw sopp nañu booy bëgg a dem wanag nga wut li nga xam ne moom nga dindee sa bés yi moo xam ndox la moo xam leneen loo koy fompe la nga wut ko bala ngaa dem ca fa ngay demi wanag sopp nañu ba àggee suuf nga sukkandikoo sa tànkub càmmooñ mooy nga ëppee doole ci sa tànku càmmooñ mel ne ku ko sukkandikoo ndax day tax nee nañu sobe si mën a génn bu baax génn bu jàppandi sopp nañu bu àggee suuf mu yàng ba ñaari lupp yi soree ba noppi tam mu yolam lu ba buntu suuf bi wàcc ba bu dee day raxas mu mën koo raxas bu dee day fopp mu mën koo fopp te bañ a bàyyi rek ni yàlla binde buntu suuf bi mu def ay ras-ras dañuy bañ mu bàyyi ko rek mu banku noona bankuwaale sobe ñu bëgg rek mu bàyyi buntu suuf bi wàcc lépp mu génn ci bit rek mu raxas ko te bañ a bàyyi sobe sa taxañu noonu ci biir buntu suuf bi dañuy wax tàncu di wax dawandiku muy al istinjaaw ak al istijmaar tàncu mooy dem ci wanaw ba noppi nag dindee sobe si ndox istijmaar dañ koy firee dawandiku rek waaye lañ ci jublu mooy mu dem ci wanaw ba noppi nag dindee sobe sa lu bokkut ak ndox ni ki aw doj wala doon ji suuf wala morsub kayit wala morsub sagar lu bokkut ak ndox daal dañoo sopp fekkee day dindee sobe si lu bokkut ak ndox loolee mu def ko lu tóol bu dee ay doj na tóol bu dee ay kayit mbaay morso itam na nekk lu tóol lim ba daal na tóol ni ki ñett ñett doj mbaa yetti kayit mbaa yetti morso daal ñett nag dañ cee misaal rek tóol gi waaye néewnu dooloo su ñett akay boo xasee bay fomp na ngay dem ba mu set rek dañoo tàmm rek jumtukaay yoo muy fompee tuul waaye ñett yi bu setut nga jàll ba ci juróom bu juróom setut nga jàll ba ci juróom ñaar su fekkee day raxas ak ndox nag moom sopp nañu mu njëkk raxas sawukaay bi ba noppi mujj raxas nag buntu suuf bi ndax ndegam sawukaay bi sobe su fi génne moo gën a woyof kon na ko far njëkkee daal di mujj nag sobe sa gën a diis muy lay génne ci buntu suuf ba lu may nag day koo xam ne saa yu laalee buntu suufam rek faaw am lu toq ci saw mi kooku moom say ba mu njëkkee buntu suuf ba door a ñëw ci buntu sawukaay bi ndax bu njëkkee buntu sawukaay bi itam bu demee ci buntu suuf ba leneen tàmbalee toq ci sawukaay bi taamu nañu mu boole ndox ak leneen loo xam ne da koy njëkk dindee sobe si mujje ndox ma ni ki bu dee ci àll ba mu wut ay doj fompe ko ba noppi door a raasal ndox loolu moo gën bu fekkee nag mër leen a boole ñoom ñaar kon ndox moo gën doji kese maanaam na jàpp ne daal dindee sobe si ndox moo gën dindee ko ay doj mbaa ay kayit mbaa yeneen xeeti morso su ma nee boole yaar yëpp daal moo gën mooy da koy njëkk a fomp ba noppi door koo raxas ak ndox waaye su ma boole yaar yëpp nag moom raxas kook ndox moo gën fomp ko rek bàyyi daal leeral nag ne sañes naa fomp rek bàyyi ci kaw ay sart daañu ko leeral taamu nañu boo dee dugg wanag nga njëkk dugal sa tànkub càmmooñ booy génn nag njëkk a génne sa tànkub ndeyjoor bépp béréb boo xam ne lu bu ñuy fonk xanaa béréb bu sobe rek la mel ni wanag daal taamu nañu booy dugg na sa tànkub càmmooñ njëkk a dugg booy génn nag sa tànkub ndeyjoor njëkk a génn jàkka nag moom béréb la bu ñuy ormaal ak a fonk dafa safaanoog wanag moom dañoo bëgg bay dugg nga njëkk dugal sa tànkub ndeyjoor booy génn nag njëkk génne sa tànkub càmmooñ bu dee kër nag moom booy dugg ak booy génn lu ci mën doon taamu nañ nga jiital sa tànkub ndeyjoor kon booy dugg ci kër ak boo ciy génn lu ci mën doon na tànkub ndeyjoor njëkk dugg bu dee ci dugg ga na tànkub ndeyjoor njëkk génn bu dee ci génn ga man ngaa takk nag ne lépp loo xam ne xeetu teraanga la ni ki sol ay yére wala sol ay dàll wala lu demee noonu dañuy taamu rek nga njëkke ndeyjoor mujje càmmooñ boo dee summi nag moom nga njëkk summi càmmooñ mujje ndeyjoor ki boo sol sa tubéy wala say dàll dañuy taamu nga njëkk sol ndeyjoor bi koy summi nag njëkk summi càmmoñ bi dem naa dem sax ba boo dee wat sa bopp wala ngay jart sa kawaru bopp sopp nañ bu dee wat ga nga njëkk wat wet gi féete ndeyjoor mujje càmmoñ ba mooy wet gi féete càmmoñ booy jart itam nga njëkk jart wet gi féete ndeyjoor mujje wet ga féete càmmoñ li ñu wax al istibra ul lablu mooy balaa raxas sobe si ca boobee mu demee ca wana wa mu wóorlu ba lépp lu war a génn génn lu mu defee ne dafa tag te mën koo tàgganti itam mu tàgganti ko mënees naa jàpp nag ne sobe si génn ci buntu suuf bi moom su yëgee muy wàcc faw mu war a teylu ba mu génn ci biti mu door a raxas su yëgee ne wàcc na waaye dafa génnut mën naa jël baaraamam génnee ko ko waaye nag dañuy araamal nee nañu dugal baaraam ci buntu suuf ci lu dul ngànt bu soobee ci tàggee rek mën na koo tàggante ci dugal ci baaraamam waaye bu mu ngànt mu sañ a dugal baaraamam ci buntu suufam bu dee jigéen nee nañu bu àggee suuf di tuur ndox ab sawukaayam dana ubbiku su tuuree ndox bu noppi nag noonee sawukaay bu ubbi ko woon su ko raxasee rek mu doy du sañ a dugal baaraamam ca biir jigéen moom nee nañu bu dee tuur ndox lépp day jekki-jekki rek sotti ku jeex du am lu cay tag góor nag bu dee tuur ndox moom mën naa am am lu tag ca sawukaay ba dañoo wax ne góor ñi dañ cee wuute lool lool am na ci ñoo xam ne buñ dee tur ndox lépp day génn te jàppandi am ci ñoo xam ne nag da ciy am lu tag loolee tag nag lay wax nañ koy tàggantee mooy day jël baaraamu sànnikaayam ak baaraamu dëyam jàpp ko ca fasawukaay ba saxe ratt ndànk-ndànk wut ci bopp sawukaay bi su àgsee ci bopp sawukaay bi mu fëgg ko ndànk asaltu ratt gi mu wax mooy jàpp gam jàpp ja fa sawukaay ba saxe ak ñaari baaraam ñooñu di ratt ndànk muy ñëw ak natru nag fëgg mooy fëgg bopp sawukaay ba su ko defee benn yoon te jàpp ne la tagoon tàgganteku na baax na su jàppee ne des na ba tey mu dellu defaat noonu mën na koo def ba yetti yoon daal ba njortam dëgër ci ne lépp lu desoon ci sawukaay bi rek deñ na waaye nag bu mu ca topp sikki sàkkaak jixi jaaxa bam di ko indil jax-jaxi googu nga xam ne te yàq diine te it na muy ratte sawukaay ba ak nam koy fëggee yépp rek na doon ndànk-ndànk bu mu xir ci diineem bëgguk sell ba tax mu def ko bu mettee metti bu ëpp ëpp ndax nee nañu loolu mën naa tax kocc bi nga xam ne moo daa téye saw mi du ko mën a téyeeti ko defee saw mi saa yu ne muy ko defee saw mi saa yu ne muy génn ndànk-ndànk ñu koy tudde am njokkale nee nañu sax loolu mën naa andi góor gi tële du mën a joteeti ak jigéen moo tax na def lépp rek ndànk-ndànk te it bu rafetee njortu ci ne la tagoon tàggantiku na rek mu daal di bàyyi bu jàppee ne sax dara tagut na raxas rek te daal di bàyyi noonu jaxi-jaxi boobu nga xam ne saytaane mën na koo nattoo nit ci wàllug laab dañ koy moytu lool ba sax nee nañu bu naree indi jaxi-jaxi su demee ca wana wa ba noppi day tooyal tubéyam tooyal li wër awraam ba nga xamee ne bu ko saytaan naree jax-jaxi loo naa ko sobe si génnaat na moo tooyal fii su boobaa mu jàpp ne ndox moom sotti woon foofu rek moomu waaye du sobe istijmaar dañuy firee baat bi rek dawandik waaye waxoon nañ ne lañ ci jublu mooy bu dem ci wanaw ba noppi nag dindee sobe sa lu bokkut ak ndox niki bant mbaa doon ci suuf mbaa lu ko nuru lool nag dañuy sàrt loolee muy dindee sobe sa na nekk lu laab bu fekkan yaxub medd boo xam ne sobe la wala ay xayta yi wow koŋ mu foppe ko loolu ëpp naa def faaw rek na muy dindee sobe sa na nekk lu laab tayit loola bañ a ratax bañ a tooy su loola rataxee wala mu tooy bu ko bëggee foppi sobe sa sobe si day gën a tasaaroo waaye du set ba noppi itam nag bu mu nekk lu amee ñaw ko lu ko mën a gaañ ki bu dee ab yax bu ñaw wala aw doj wu am ñaw ka nga xam ne bu ko foppee bunt suuf bi mbaa fenn ci yaram wi mën na koo xotti muy nàcc loolu day lor boppam bu mu ko dindee sobe ba tey it loola bu mu nekk lu ñuy ormaal lu ñuy ormaal mën naa am doon gum doon ak lekk tax ñu koy ormaal mel ne du fekk mburu mu wow wala daal leneen lu ñuy lekk lu wow rek daal di koy dindee sobeem ba tey lañuy ormaal mën naa am muy xeetu mbind xeetu mbind moom nee nañu bu dee alxuraan ñu di ko màggal bu ko tayee ba noppi di ko foppe sobe dañuy jàpp ne daa murtat maanaam daa génn ci lislaam bu ñu sañoon sax lépp lu am xeetu mbind dañuy ormaal mbind ma ba kenn du ko fompe sobe lee mu ne laa naq di nag mooy lu mel ne lu bokk ci wurus mbaa xaalis dañuy bañ ku ko foppe sobe wurus ak xaalis suñu boroom ci boppam moo leen ormaal ba kenn war leen a jël di leen fompe sobe nu fàttalee ne buy bëgg a dugg ca wana wa lépp lu ami rek mbindum alxuraan mbaa turu yàlla mbaa turu yonante bi yu mel noonu na ko génne bàyyi ko ci bitti bu fekkee nag bu ko bàyyee ci bitti ñu sàcc ko mbaalu mel noonu kon nee nañu bu ko dugalee ci posom rek ba feeñatut mu daal di doy bu ko dugalee ci leneen lu ko mën a muur it niki ci portefeuille wala porte monnaie mbaa daal xeet dencukaay yi bu mu ko ci def ba feeñatul rek dal nay baax mën na koo dugaale ci wana wa xeeti appareil yi xew léegi na nga xam ne mën nañ caa bind alquran wala leneen loo bëgg ci xeeti mbind yi loolu soo ko fayee ba nga xam ne mbind ma feeñatut mën nga ko dugaale ci biir wanag ba tey lu mel noonu duñ sart ne bala nga koo laal da nga amee am jàpp yu mel noonu mën nga koo laal te amewu am jàpp waaye la ñuy bañ nag mooy nga dugg ak moom ci wanag bu jekki-jekki daal di tàkk tàmbalee yëkkati kàddu ya moo tax am na kuñ laajoon ndax lu mel ne appareil téléphone yi mënees na ci aristé alxuraan mbaalu ko nuru mu ne la ci araam mooy mu dugg ba ci biir wana wa mu jekki-jekki daldi tàkk tàmbalee wax waaye su ma nee dogu ci balaa dugg ci wanag rek fay ko kon mën na ko caa def doomi aadama nag fàtte da ko yomb daa mel ni daal suñu xeeti appareil téléphone yeeg yu bare bari ci mel noonu la gën mooy bañ caa def alquran ba hadis ba xasaayiti sëriñ bi ndax rek mën nga koo fàtte dugg ak moom ci fu mel ni wanag fayoo ko woon mu daal jékki-jékki tàmbali yëkkati kàddu ci biir wana wa ba tey mën ngaa dugg ak moom jàkka it mu jékki-jékki daal di tàkk rek daal di gàllankoor ña fa nekkan di jaamu yàlla képp ku koy def war naa farlu ci balaa dugg jàkka fay ko balaa dugg ci wanag mbaa béréb bu am sobe itam fay ko dafa mel ni sax su mënoon na bàyyi appareil ba muy fëgg rek fëgg bu ndaw nga xam ne bu kenn wootee dana yëg ne rek appareil baa ngi fëgg te fëgg ba ndànk lay doon daanaka moom rek moo koy yëg ne am na ku ko soxla keneen du ko dégg mooy gën a baax muy ëpp tuyaaba li ñu waxoon léegi ci bu demee ca wana wa sañ na koo dindee lu bokkut ak ndox fomp rek bu setee mu baax dañ ne woon am nay sart sart yi mooy lañu mën a fomp rek bàyyi mooy sawum góor bu fekkee ne te saw ma génnee dafa yem ca bunt ba rek yeesuwu ko waaye bu xësee tasaaroo faaw dañ koy raxas fomp du ca doy sawum jigéen moom nee nañu faaw day aajowoo mu raxas koog ndox mooy aw ba li unusaa jéem wax ndax day ne jigéen bu tuuree ndox faaw di yem ca bunt ba day tasaaroo jëm ca njekkikaay ba faaw kon da koy raxas xayta nag moom muy góor muy jigéen su fekkee ba mu génnee tax yam rek ca bunt ba bunt ba rek a taq waaye la ko wër taqul ba tasaaroo ba tey mënees na koo fomp rek bàyyi waaye moom it bu xësee tasaaroo ba weesu bunt ba faaw dañ koy raxas am nañu mu ràññil nag ne moom faaw rek ndox lañ koy dindee te mënu koo fomp mukk mukk mas yi la njëkk a tudd mas yi moom bu ko see génn rek kooku da ko war a raxas te dañoo waxoon ne day raxasaale te tàmbalee ca fa sawukaay ba saxe ba fa mu yem doon ci toq ca te boole ci yéene ndax dañ nu ko digal rek te xamuñu lu tax ñu digal nu ko kon mas yi moom raxasal ndox rek bu amul ndox nag du tee mu julli julliwaale sobe si ndax ngànt la ndegam mënu koo dindi moom na julliwaale sobe sa waaye faaw bu amee ndox rek war koo raxas ba tey jigéen bu dereti raygalam jeexee wala dereti wasinam jeex te mënta sangu kon su amee ndox moo xam ne mën naa raxas la ko taq ci deret da koy raxas rek noonu di tiim nag di julli ba ba muy mën a sangoo maanaam ba am ndox mum sangoo wala bu fekkee wéradi la wéradi ga dañ ba mën a sangoo waaye daal deret joojee fomp ko rek du doy raxas rek moo ciy baax bu amul nag nu mu ko raxasee te fekk mu war a julli moom ndax dereti mbërëg mi jeex na wala dereti wasin yu jeex na raxas ko rek dindi ko la mënut bu ngi ko tee tiim julli degam tiimay farataam nay tiim du julli julliwaale sobe sax ndax lépp yi wax ne sobe la dañ ne woon su fekkee ngànta tax koo ko julliwaale ko mëntoon a tàggoog moom def na la ko war ndax sañu te yeexe julli ga sax ndax ni daay bàyyi ba tàggoog sobe si far yeexe julli ga ba waxtu wa jàll bu ko defee def lu araam aw man yin jéem wax it noonu la man yu balaa waral sangu farata bu fekkee ne kooku nekkutoon di nelaw man yu ma day génn te ànd ak bànneex ba ko baaxoo génne mel ne laalante ak jigéen tax man yu ma génn wala xalaat ko lu yàgg-yàgg wala xool ko lu yàgg-yàgg yooyu yëpp xeeti bànneex la bu koy génne su man yu ma génnoon nag te anut ak bànneex mel ne jiit da koo fett rek man yu ma daal di génn wala ànd naag bànneex waaye boo bànneex kat daw ko génn ci aada mel dafa jurgóotu rek wokk am noppam mu daal di génn bu fekkee bànneex mu am ci wokk gaa taxit boobu bànneex daw ko génn ci aada lu mel nii day toj njàpp ak it ñu jàpp ne soobee la suñu war a raxas foofu lay wax ne nag man yi moom faaw dañ koy raxas waaye fomp rek du ca doy su amul lu mu ko raxasee saye boo rek mu julliwaale ko saa yu amee lu mu ko dindee door koo dindee waaye fomp dong moom du ca doy bu doon man yi ma nga xam ne sangu farata jaawar nag moom bu dee sangu farata rek sobe soos dañaale góor goo xam ne itam dañoo dagg ab sawukaayam fa mu saxe wala wala ñu dagg sawukaay ba daggaale waa yàlla ya kooku bu dee tuur ndox tuur ndox mu faaw day tasaaroo di yem rekk ci buntu ba wut faaw dañ koo war a raxas ak ndox fomp rekk du ca doy su ko mënta raxas nag mu julliwaale sobe sa ba bam koy mën a raxas rek